asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 24 juillet 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal yëglikaay bi di sunu làmb ak Leewtoo TV fa la ñuy xëy kaay bi di sunu làmb nag tey dafa xëy ñëw ci combat royal bi diggante Modou loo ak Eumeu seen xëy nag wan ñu Modou Lo boo xam ne mu nga takkoo ay sengooram ràngoo ko dal jël butéel di sottee koo ca bopp ba mu mel ni ki nag yëglikaay bi day lam ñu xamal daal ne na dëkk yi nga xam ne moo di jaxaaw ak buluf day daa mel ni fi mu nekk nag moom pare nañ ci mbirum Modou Lo bu doon jàpp daal daa mel ni ne nañ ko nit jàpp téye nañ ko ci mbirum xarfa xuufa mënut a jaar fenn kon daal ba ëma seen du ko daan mu mel ni ki nag yëg likaay bi ne leer ba leer dey ci côté marabu yi moo xam marabu yi ki nii la ñoom daal ñu ngay ñaan ngir kii nga xam ne nii lay moo di ëma seen daan Modou loo te ba pare itam leneen lañ bëgg mooy beleen dem mu ëmma seen ba nga xam ne day dina dem retraite yóbbaale lii nga xam ne moo di couronne roi des arènes bi mu mel ni kii nag Serigne Soso sépp daal ñu ngay liggéey ngir Modou Lo daanu bu dimanche yëglikaay bi nga xam ne nii day moo di sunu làmb moo xëy tey ñëw di ñu ko wax keneen koo xam ne moom ñëw na wax ca combat ba mooy Zallo nekkoon fi mbër Zallo nag la mu ne daal moom ne na seen diggante day boo sàgganee xeex ba day mën naa def lii nga xam ne nii day moo di différence su maanaam xeex ba bu amee moom mën naa def li nga xam ne daal mooy différence ba Zale moo xëy tey di wax loolu nee tamit daal ñoom ñaar daal ñëw na ci seen côté bëre ci seen tànk yi nga xam ne nii moom la ñuy jiital mu mel ni ki daal combat boobu moom xëy na wax ci li nga xam ne nii day moom moo di xalaatam moom Zale Lo ne ko favori mu ne favori bi kenn nekkul kenn daal ku dul Eumeu Sène Zale daal la mu jàpp mooy Eumeu Sène moom mooy favori boobu combat waaye ba tey combat boobu daal la ca am mooy promoteur ba ko tëgg nee na day prévente lay def biir maanaam daal ku jëndul sa ticket ba dimanche moom boo koy jënd jàppale sa ticket moom bu dañ la koy jaay trois mille wala lu ñu la ko mën di jaay bu keroog moom da sa yokk aslëf maanaam daal li leer ba leer moom ku bàyyi ba bésu combat ba ngay jënd moom combat ba moom jàppal ne kon sa billet ya ngay nar a jënd yow pour dugg seetaan moom des na ko yokk mu mel ni que loolu mu wax nag Doudou Diagne Diecko mu jiite amateur yi moom ànd caak moom tey suba waxi noppi Doudou Diagne nee na ko day tëgg nga combat bu neex d'accord waaye nag xoolal bu baax a baax li ngay def ak li ngay wax ndax nag ñun ci làmb la ñu ne te itam du ñu nangu nag benn amateur ñëw ci bisu làmb ja ñu naan ko da ngay jënd bee lu ëpp la nga xam ne nii day moom la ñu ko doon jaay avant combat bi mu ne loolu moom amul ci làmb ay prévente du jaañ daal moom jàppal xalaat booba nga xam ne nii day moom la Moustapha Diop ma tëgg combat ba am àndu ci ak moom tey suba waxi noppi ndax nag nee na moo jiite amateur te loolu masta am te duñu ko nangu ñoo lànk kandaare bay ut ku ñu lànkale loolu waxi du jaañ jekko la waaye am na ñoo xam ne xëy nañ wax ci combat bi jàppal ñii nga xam ne day ñooy waa marché syndicat moom joxe nañ seen xalaat waaye ñi ci ëpp daal daa mel ni Eumeu Sène la ñu àndal ci boobu combat mu mel ni ki daal fi nekk nii moom diggante Eumeu Sène ak Modou Lo mooy dafa waxu di aay di njàmbat di coow ci dëkk bi moo tax nag yëglikaay bi ne nañu dey li leer ba leer Eumeu seen moom tey jii lay def open press am fa nga xam ne nii mooy ca stade Alassane Djigo yëglikaay bi xëy na tey ñëw di ñu ko wax leneen coow loo xam ne ni day amoon na fi doxoon ci diggante moroom Pikine ak moroom Géejawaay muy Lac de Guiers numéro 2 ak nga xam ne kii nga xam ne moo di Boy Niang ca Leewtoo TV day fa la ñu seetaan ak ab vidéo Lac de Guiers numéro 2 nag mu mel ni ki nag li leer ba leer recours ba mu dugaloon wala ñoom ñaar ku ci ne bu dee da ngaa dugaloon recours moom Lac moom ab recours am jural na ko ndam ndax nag ñu ngi ñuy xamal ne day ci ab vidéo Lac de Guiers numéro 2 ndam loo la nga xam ne nii day moom la doon sàkku jox nañu ko ko ci firnde loo xam ne day mu nga ci Leewtoo TV ci ab vidéo kayit ga indi nañ ko wane ko mu leer nañ ab manaat seeram moo demoon ca CNG ba ñu jox ko kay kay wane ne day moom am na ndam moom Lac de Guiers numéro 2 ci recours booba nga xam ne dugaloon na ko maanaam sëba nag du kenn ko dul Mouhamed Ali jamono jooja nag bu ñëwaatee ci sunu làmb mu mel ni kii nag Bourkhane waa mu ngay àddu di wax Bourkhane day ne na loolu moom amul problème ñun d'accord nañu Bourkhane mooy maanaam sëru booy Niang ne na li leer ba leer Boy Niang loolu yàqalu ko dara ndax nag xale la boo xam ne day mu ngi ci kaw làmb ji te itam nag loolu amul lenn lu muy yàq ci carrière am xanaa kay day gën a defarwaat rek jàkkaarloog ay adversaire am ndax bëri na ñu mën a bëril ci làmb làmb ji waaye ba tey ki nga xam ne nii day moo di Mouhamed Ali moom nee na li leer ba leer day ñoom ba ñuy dugal seen recours leeroon na leen naññ ba na àddina bi yépp gis nga xam ne nii day moo di Boy Niang Lac de Guiers da koo daan jël bu leer Mouhamed Ali moo wax loolu ñeneen ñoo xam ne mi moom jël amagul ci seen ay diggante te samedi la ñu fas yéenee bëre muy góor a soog ak Tyson 2 mu mel ni ki nag kii nga xam ne ñu day moo di Pape Diagne Seras xëy na di ca wax xalaatam nee na la boo xam ne ni day combat wu technicien la ko tudde moo tax nag jàpp na ne sax xeex bu bari bañ cay xaar mën na caa bañ a am zaaliw ba wala boog kii nga xam ne moo di Pape Diagne Seras moo xëy tey di wax loolu keneen koo xam ne nii moom ci wàllum lamb simple ji la nekk waaye nag am na ay critiques yu méttee métti ci saison bii muy Cheikh Tidiane Niang rawatina la nga xam ne nag da koo raté muy drapeau de l'État ba nga xam ne day mënu koo gagné moo tax daal fi nekk nii moom ah gaa koy critiqué bu baax baax Jax moom promoteur u lutte simple la wala boog nga ne promoteur u lamb waaye jàppal un million la annoncé woon day ne da koy teg ca Iba Mar Diop bésu le 28 juillet di dimanche ji dafa mel ni daal loola mujj xaaj fas yéene nag teg li nga xam ne nii moo di mocce un million ya maanaam daal kon cinq cent mille lay doon yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dañu ko wax waaye fa ñuy jeexale nag moo yëglikaay bi di sunu lam moo xëy tey ñëwal ñu ci Lac de Guiers numéro 2 ak lam jot am ci ay combat jàppal sunu lam ne na treize victoire benn sans verdict digganteem ak Baboy ñaari match si nil ak ñaari défaite yëglikaay bi xëy tey ñëw wax ñu ko mu mel ni ki tey loolu moo fi ñëwoon waaye bu leen fàtte samedi de drapeau Moussa Diaw maanaam daal diggante ak ngeer et fa nga xam ne ni day mooy arène nationale lay amee jaw borom ADN kon taala Ndiaye bu kenn fàtte bis boobu tamit bu bët setee nag ca la ñuy door a dem nag ca combat royal ba fa nga xam ne nii mooy stade Léopold Sédar Senghor. salaamaaleykum mbokk yi sur Leewtoo TV ñu leen ñu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal ñu ànd ak yéen seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee à chaque fois ma si ànd ak sama mag sama xarit Babacar Babacar ay Aysatu Fay madame Niang maa ngi lay fay di la nuyu sama rak sama xarit di la ziar di jàmm di ko saaku ci yow mais di nuyu internet yi ñuy suivre. Babacar dañuy dugg ci waxtaan bi fu toll nii Congo euh, Babacar wax waxtaan bi à chaque fois mun nañ ne liggéey ubbi mooy combat bi nga xam ne daanaka yegg si na ba pare le 28 la muy diggante Eumeu Sène ak euh, Modou Lo fu mu toll nii nag ñi ngi ne ci ay wàccaay mais tamit côté mystique bi. mi ngi gën a dem parce que tey foofu la suñu lamb xëy andi wàllu mystique bi ak ñi nga xam ne tey ñoo taxaw pour jàppale ki nga xam ne mooy Eumeu Sène muy waa jaxaaw waa bof ah, sëriñ ñu doon ñaanal yi ki néeg ñëpp daal fu mu toll nii nee nañ nañ pour jàppale ko ci combat bi nga xam ne ni moom moo dox diggante mag Modou Lo ah waaw loolu day lañ xëy tey gis ci yëglikaay bi muy lu nga xam ne ni tamit ah lu yéeme la ba ñoom sax soo ci jàngat bi maanaam maanaam fi mu nekk nii ñoom mbiru Modou Lo dèjà mën nañ na ñoom pare nañ ci ci côté mystique waaw tegee nañ ko côté quoi maanaam waa jaxaaw ak waa bof ak yooyu ak ñi doon ñaanal Yékini ci li ñu gis ci suñu làmb ah loolu nag euh, xëy na kon Eumeu Sène moo dox lool wala mu am ñu ko ci jàppale wala mu ba loolu mën a am wax làmb nag comme li ñuy wax tamit wàllu teen la ku ñëw si pind ba nga yem ah, mën nañ la ñaanal ngemb la pour indi la waaye nag bu ñu demee ba ci biir géew ba moom ñëpp dinañ xaar ci biti yow lay am ci géew ba yow athlète bi ne si biir wala yow mbër mi yaa ko fay def kon nag fi mu nekk nii kon dafa mel ni ñooñu moom ci li ñu gis mooy ñoom ci côté boobu moom mu ëmm seen moom côté am lépp baax na waaye tamit li may wax rek <laughs> làmb daal làmb la tudd li leer ba leer nag liy leer bu keroogee dimanche lay leer ndax itam xam naa ne noonu mu amee ci côté boobu xalaat naa noonu lay amee waa kër Modou waaw say nelaw dana jeex di nga dem ci ña nga yaakaar ne ñoo la war a ñaanal pour bés bi nga mu génn ceeg jàmm ku ci ne di nga dem ci ñu waaye nag suñ ci demee nag ba pare nag genn kàddu ki ki ko yor benn dogal bi ki ko yor mooy buur bi rabbaara tabaraka wa taala yàlla suñ borom bi hmm, moom nag parce que ñun ñëpp ay jaam lañu mais ku ne da nga koy ñaan waxee nag comme yow da ngay ñaan te li ngay ñaan ndax ku li nga moom ay sa doo koy ñaan da ngay dem jël yaa ngi dégg mais ki ñuy ñaan kenn la mooy yàlla ah nañ fi yàlla ñu ñaan yàlla mu bàyyi ñu fi ba dimanche si kàttanu suñ borom ah ñu xor kan la yàlla yi nangu ñaanam wala ku mu yàndal waaye dama naan daal ci li am solo daal ba am solo mooy lépp nañ ko tënk rek ci cadre sport waaw man foofu laay waxee daal. ba tey ci combat bi Zallo ñëw na ci daal di a euh, andi xalaatam parce que li mu gis ni mooy jour ba xeex bi dina def différence ci ñaari mbëri. waaw Zallo moom boo xoolee moom ci côté technique euh, technique bu bi la waxee waaw loolu moom tamit yaakaar naa ne su waxee loolu war nañ ko a pour nga gisoon ku ko dàq bëri sax loolu dina jafe kon tey bu demee ba retraité di yore ay mbër di leen forme euh, taxaw seetlu boobu mu def ko ba pare mu bëri ak Eumeu Sène combat bu metti woon te yàgg ba bi ko Eumeu di daan kon bu xalaatee ne xeex bi mooy différence mooy def différence combat bi mën na nekk te combat bi xalaat naa xeex dina ci am parce que boobu moom yaakaar naa ne xeex mënu ci bañ am diggante Eumeu Sène ak Modou Lo parce que seen i taxawaay moo koy wane ak ku ci ne envie bi nga am actuellement ndax boo xool seen combat bu njëkk xeex bu metti lañ xeex bëree bëri bu metti ba yàlla damay mut loo euh, ndam kon loolu Zal wax itam man séntu naa ko ci waaye xam naa ne ci itam beneen bi ci des yaakaar naa ne komba bi euh, dina yàgg lool waaye xalaat na ne jël dina ci am waaw. Ah, waaw nit ñi moom xam naa ne moom jël la xaar ci combat parce que bëgguñu ay nul bëgguñu ay naan am naa a recours duñ ko bëgg a gis si combat bi nii Babacar mais itam dañuy dem rek fàttali tey la open press ki nga xam ne nii mooy Eumeu Sène fële la koy def stade Alassane Djigo muy open press am tey pour préparer nag tàggoo tàggoo bi balaa dimanche digganteem ak waa Pikine ak waa naa ku fa dem tey di nga gis li nga xam ne nii mooy mbooloo mu takku parce que Pikine ku leen xam-xam ne ñoom dañoo fonk seen nit fonk seen i bés fonk seen i eh, mbir kon yaakaar naa tey moom ku dem alsan jigo lépp luy nga xam ne nii moom la ëma seen nar wala mu nar koo def dimanche yàlla tey lay def bi fi nga xam ne nii mooy stade Alassane kon ñuy wax rek yàlla nañ ko commencé ci bismillah rahmaani rahim mu jeex ci alhamdulillahi rabbil alamin dem sa ci jàmm ñu ngi si jàmm kenn bañ fa jële benn tolof tolof moo xam presse nga jóge moo xam ab supporteru ama seen nga moo xam amateuru làmb moo xam daal ku fa mën a ñëw rek yàlla na la yàlla muccal ci lépp luy ay daal dem euh, si nga xam ne ni mooy waa kër euh, Boy Niang ginnaaw bi verdict bi génne la degeer wax na ci kii tamit euh, di dugal di waajoo ci Boy Niang moom it ñëw na ci nee na ñoom fas yéene ñu def recours dañuy daal di nangu dogal bi nga xam ne ni moom la CNG joxe. mais Aïssa balaa ñuy dem foofu nag lamb bu dimanche bi ñu doon wax léegi diggante ak Modou dañ ci gis lu nga xam promoteur bi da ko def loolu dama la koy laaj prévente ci lamb. Moussa Diop moom la def maanaam boo jëndulee billet bi ba bisu combat boo koy jënd dañ koy yokk tegu ko fenn du yoon yow loolu noo ko gisee ay sa laaj la. Ah, Babacar tey yaay man maa def da nga may saani jàngat ah, waaw ba tey Babacar boo xam naa système préventif bi rek c'est juste pour jaay le maximum de billets balaa jour bi genre comme def guichet fermé mooy balaa tey jii su ma naree jënd billet mille dimanche. tey mercredi jeudi ba vendredi ba samedi am naa 3000 francs yu ma mën a jëndee billet damay daw dem jënd sama billet denc ko balaa jour ba du ma fa nekk di ran du ma fa nekk di nekk si naaj bi tàng bi dama ragal ni loolu moo tax Moustapha Diop jéem a innové ak li nga xam ne ni mooy prévente bi jéem a jaay pour peut-être dem ak guichet fermé. am na solo ah er, innovation moom lu am am solo la waaye président amateur yi moom gisewu ko noonu li ma ciy wax nag mooy man sama xalaat mooy que ni muy promoteur bi nga xam moo tëgg combat royal bi ak amateur yi lu mu ci mën a doon rek nañu ay ay jour des na suñu diggante ak ba nga xam ne dinañ trouver terrain d'entente ba nga xam ne foofu problème du fa am parce que promoteur bi yaakaar naa xëy na pour gaañ askan wi amateur yi tamit ñoom it ki leen di taxaw muy seen président di Doudou Diagne li mu bëgg tamit mooy amateur yi kenn bañ leen a gaañ kon defe naa loolu nag bu amee si ñaari camp yëpp pour man foofu war na mën a nice quoi ba dara coow du fa mën a am daal waaw. Euh, gëm naa ni sax coow du fa am parce que loo gis rek euh, waxtaan euh, moo si jiitu waaw buñ ci waxtaanee rek dinañ trouver incha allah terrain d'entente Babacar ñu dem si ki nga xam ne ni tam mooy père de Gaulle comme ni mu la ko waxee ñoom nee nañ nangu nañ dogal. waaw ginnaaw bu recours génnee parce que démb comme ñu ko waxee rek ñu ngi doon dégg numéro recours waaye comme Leewtoo TV tamit day bëgg lu leer ba yàlla dogale ñu dem kër Lac de Guiers ah war a waxtaan ak moom ñu commencé waxtaan wi yàlla def. ñu laaj ko recours bi mu ne woo nañ ko wax ko ne recours bi génn na jox nañ ko victoire fa ñuy waxtaanee dama matul deux minutes mo manager am jóge CNC muy Mohamed Ali ñëw indi recours bi wane ne kon am nañ ndam kon li ñuy def mooy féliciter la de Guiers numéro 2 ak ay supporters ak waa Guédiawaye yi àndoon ak moom parce que loolu mooy sport ah. euh, li am solo daal mooy ku mu ci mën a doon parce que li may fàttali mooy des fois CNC da lay àtte ah, nga ne dañ ma contre wala nangam bu nekkul sa faveur bu nekkee sa faveur nag nga savourer loolu mbër yi maanaam ñëpp laa ñun sénégalais sax laa koy wax ñun ñëpp ñun ñëpp ñun ñi tey tey man naa jotee ak Aïssatou Faye tooñ ko ñu ne bayaa yaa tooñ duma ko nangu te fekk na man maa ko tooñ kon nañuy accepter lépp parce que damay fàttaliku heure bi daaw lak yu mel noonu arrivé woon na ko ci benn combat mu am nu mu waxee woon mais xëy na boobu yaramam nga xam ne kii tey <laughs> xolam sedd na ndax liñ ko àtte neex na ko ñu jox kon félicité nañ ko di encouragé Boy Niang di ko wax ne moom tamit xale la mu ngi ci làmb lii warut a mën a yàq si carrière am dara au contraire da ko war a mën a may mu gën liggéeyaat xool li yàqu woon wala li baaxul mu yokk ko te dem avancé lag itam yaakaar naa ne tey kuy mbër rek na ci làmb ji war nga mën a bëri ak moom parce que nag da benn yoon la daanoogu ci làmb yaakaar naa ci lu ñu mën a jàpp wala ñaar boog te benn bi euh, par avertissement la ko ñàkkee mooy contre Modou Lo yaa ngi dégg kon waa Pikine nangu nañu comme ni ko Burxaan ak Dégol waxe nangu nañ ndogal bi ah loolu mooy àddina mbir su ñëwee da koy accepté Mohamed Ali tam nee waroon na leen ñoom bu ñu reculer dañu am victoire xëy na loolu lañ jàpp ne kon buñ ko defee am ko am nañ ko félicité nañ leen encouragé nañ ñenu ñële Sénégal continuer et tamit di waxaat rek wax yi nañ ko gën di rafetal ay sa ci ñaari kan yëpp euh, Sénégal lañ ne quoi te ñun ñëpp ay mbokk lañ te réew mi dafa xat ci lu ñuy sànnente yenn traag yoo xam ne wax yow mi koy wax del sóoraale ki koy dégg wax bu ñaaw moom dama yaakaar ne amul les lu war a jar doomu aadama di ko wax moromu doomu aadamaam nañu ko rafetal rek sport la sport la te àddina mu ngi fi te àlla lépp day jeex waaw. waaw Babacar dañuy jóge foofu dem euh, fay ca Leewtoo TV fekk fa tey ba tey Papa Sow Papa Sow tamit euh, demoon ci open press su Gora Sock profité si tamit daal di waxtaan ak euh, Leewtoo moom it ñëw na ci ay adversaire am waaye tamit ñëw na ci li nga xam ne ni moo nekk écurie Fass jamono ñu toll. waaw Papa Sow ñëw na ci adversaire waaw parce que wax naa ko ci booy Niang mu ne Boy Niang du ma ko laaj waxuma sax mu may jéem a bañ parce que moom li ma def ci làmb def na ko. waaw loolu la wax kon kooka mu ngay sànni traak waaw yenn adversaire itam ku ci ne mu nga moom daal xalaatu ci laaj kenn parce que jàpp na ne li mu def defuñu ko écurie Fass nag la mu ci wax nee na moom dootul nangu kenn ak a doon foo jeex wala soo ko defee mu def moom mu mu mu ngeen seq ko ah, loolu nag xëy na li mu ci jublu mooy écurie ba fa la xëy na la mu am ci làmb fa la ko amee ñëpp fa lañ ko xamee moo tax mu yaakaar ne mbir mi mu ngi yàqu te bu yàqoo moom dina ci am ay compte yoo xam ne ëllëg dina ko ci rendre xëy nag moo tax muy bañ ba muy yàqu bay yegg ci yaxeet ba nga xam kenn dootu ko mën a defar moo tax nag muy muy jóg olof nag na fagaru moo gën faju waaw xëy na looloo tax mu jógee noonu moom Papa Sow waaw. kon mun ngeen koo fekk fële ca Leewtoo TV Papa Sow mi ngi fa di wax ci face ak. ay combat am ka ñu jeexal ak euh, ki nga xam ne ni mooy Jax moom mag euh, di dëtmal ñaari gala le 28 ak le 31 juillet incha allah le 28 les mise 3 millions fële ca Ibamar le 31 mu daal di annoncé woon 1 million mais daal na koy xaaj 500 euh, 000 pour le 31 juillet. ah le 31 bi la xaaj. kon dimanche bi moom le 28 maintenir na 3 millions yi.

yaa ngi di bay sawar te et bëgg nga làmb dox. addina ay sa lépp risque la ah. addina moom amul li ñu def sax risque ngi ci parce que kenn toogul fu wóor ndax li tax mooy lépp yàllaa ko yor kenn garanti sa bopp mais nag dafa yaakaar ne public bi ñëw lit simple. bokkul ak bii dem lit avec frappe te des fois yooyu da ciy am te xalaat naa ne bu ci guumee xam nga rëg-rëg fi mu amul combat est-ce que du fa jaagu mbaan ak ñoom euh, Franc. ndax fara da fekk mu bëre ba pare ñoom Cheikh Tidiane ñaar ñoom ngel jon samp yooyu yëpp xalaat naa tam nga gis leen fa ay coriace waaw moo tax ba nga xam ne daal yàlla na réussir dimanche moom Jax waaye Moustapha Diop yàlla na réussir dimanche euh, Léopold Senghor waaw ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di jaajëfal Mame Talla Cheikh Lebou ci caméra bi di jaajëfal Ousmane ci montage bi di jaajëfal équipe Leewtoo TV bi yëpp ndekkumba moomoo maane yàgg maar béréb ñi nga ah képp koo xam ne rek yaa ngi Leewtoo ñu ngi lay bëggee bu baax koo xam ne internaute nga tey safoo Leewtoo TV Aïssa noonu lay di nuyu internaute yëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm ñoom Gora Seck Afrique du Sud ah, ku ñu suivre baara ak Kanji mu nga ba Brésil di ko nuyu di ko ziar mais di tamit nuyu sama benn mag koo xam ne sama kilifa la ñu bokk yaay muy Pape Ñaan am na ñoo xam ne si turu Pape Bomboy lañ ko gën a xam parce que li tax ma wax loolu mooy sama kilifa la benn te à chaque instant day toog ak man di ma yokk xel ak xalaat rawatina ci lii may def muy lu jafe-jafe wala lii ñuy def kon moom maa ngi bu baax a baax Pape Niane te nit ñi gën koo xam ci Pape Mbambay di mécanicien nekk fële ca ri 1 maa ngi koy nuyu bu baax ba di nuyu waa garage ba yépp waa garage Mbaye Tall di leen ñaanal jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm daal amin baaba